nga ñoon fekkee ci li nga xamanteni bi modi di match entre rappeur yi ak man ni ñu bëggono xam sa réaction ci li nga xamni modi di match bi tay wa nuyu na la jongama bu ñaawul bi deug neexul fay la ah di nuyu wa Dakar instant di nuyu sama mam malik euh di am mbégte sa su nekk rek euh, voilà di jàkkaarloog yeen parce que yeen mom c'est la famille deug neexu ño bokku mais li dafa nekk événement ba nga xamni euh chaque année nit ñi dañ koy waaj Sénégal dañ koy waaj parce que collaboration la entre man ak rappeur union la mu nek ben solidarité ba nga xamni wax deug yalla c'est à féliciter c'est à encourager xam nga ci euh, Dabrens Prod bi ko def donc lu yomb la dal day wone ni rek Sénégal ben bop la té kenn mën ko xaar ñaar lolo tax ma ni ak sama équipe la 2STV bi ma dal di ñow rek wa dal di ñow tok sétane à l'aise ni tan dal dal di bëggee kuy dóor kan moy dóor. mi ñi ni ci souf bi di roubé waaye duma len faalé dal daal japp sa ñaamul kan moy dóor tay moom man nak wax dëgg yàlla rapport yi xaat kot la dafa dëgër te man bugguma lool man tax sa mbax cindring haa man laay wër kon maa ngi ci mbalax maa ngi ñooy dóor lu lu met non bàyyi ma bàyyi ba si kanam dama mel ni Selbé Ndom bu ma waxee day day taxaw bàyyi ma taxaw rek. <laughs> ci loone ça va tranquille ah. waaw nice léegi noo gisee li nga xamante ne bi moo dem match entre euh, rappeur yi ak mbalax maan yi nga xam dañ koy dégmal di ko def chaque année. parce que euh, damaa rafetlu damaa rafetlu ci initiative bi ñu def. initiative bi initiative bu rafet la bu mbiñoon la tey bu jëlee ku mel ne ñu ñu jabet ñi nga xam ne rapport yi dañoo xaw fibrom ñi jabet waaw ñu bari dañoo jabet ñu bari dañoo jabet léegi ñun na sapeur pompier ñëw rek parce que xam naa ne tey lu bari na fi xew parce que dañoo jabet ban position ngay joué position bépp damay góol damay dugal damay lépp laay def ñaata ñaata nga yaakaar ni moom la mbalax maa ne fas yéene dóor ñu nooy ñu nooy dóor 14 1 1 1 waaw d'accord ok chérie bisous c'est gentil waaw maa ngi leen di bëgg di leen siyaar xam li nga xamante ne mooy sa réaction ci li nga xamante bi mooy li am chaque euh, chaque année muy match entre rappeur ak mbalaxmaan yi waaw di si kontaan rek ah, parce que ñun ay xale lañ mun nañ ne lii ñoo si gën a ndaw daan nañ toog gis suñuy ay papa di def suñu ay mag kon tey jii bu ñu demee ba ñu siy boole dañuy sant yàlla du lu ñuy mais lii dafa neex parce que tamit lii mooy musique

bu deugul 3e wala 2 wala 3 la dal parce que 1 yooyu ñu dugaloon daw mën nañ ko transformer joxaat leen ko quoi. am c'est-à-dire koy dóor bob ba léegi mënta gëm ni yang koy dóor nga koy yey bok sax mo mu xamni mo mokk na ndax rappeurs yi bu ñu amoon jom ñun dañ ñuy bayyi dem attaquer ji communicateur traditionnel yi mbaa ñu attaqué commerçant yi mais heure bu ñu ñëwee ñu dóor leen bii mooy dix-neuvième édition édition bu ñu doon la ay waay ni nak ay waay ku compliqué doo neex expliqué initiative bi rafet na nice na neex na ndax entre mbalamaan ay rappeur rappeur yi kenn daaw leen sax xool ñu ñoo may visibilité boobu ndax ñu dañ leen daan daw dañ leen tegoon ay dof ndax ma malade mental kenn du ko tegal instrumental ñoom nag nit ñu ay dof lañ leen tagoon ñu sarax leen fexe ba nit ñu ñeme leen kon na ñoom dañoo war a sant gërëm ñu waaye ñu ñeme ñu yëpp ñu bëgg ñoo ay problème olof Ndiaye nag nee na ku laalaa làkke di nga tax a lapp tàkke te kat ñax ak salade du ñu benn ku weddi bi nee garal te ñànkatan fu mu làqatoo di jëw soos ko toog ko sori tey ngeen dee man mi su ma neexee jeu neuf su ma neexee jeu milieu terrain su ma neexee sax arbitré man mi monsieur Cheikh mais di ci kontaan rek léegi dañuy ñëw pour magal xale yi rek parce que léegi c'est la jeunesse mun naa wax ni euh, euh, nu mu tuddati euh, maanaam. dañoo toll si jamono boo xam fi papa di nijaay di ñun xale ñun ñooy seen papa ndax tournoi bi ñun commencé woon ak baxaw tout au début ba léegi tey dañuy rek symboliser ñëw suñu ñëw marqué suñu présence wan xale ñoo seen ñoo seen gannaaw pousser leen encourager parce que fête de la jeunesse la donc euh, loolu moo ñu fi indi tey entre rappeur ak mbalax c'est la musique sénégalaise qui gagne non tey moom incha allah man maa indil na leen ay bagages tey gars yi dinañ leen defal bagage tey maa yor ci mikaay bi. mais maa ngi ni sant yàlla bu wér. tey nga ñëw ci match bi war a dugal 3 bi man mi dugal 3. match bi dama ko jël o sérieux ndax démb dafa am ku ma ma foog nga saraxe waaw ma xëy saraxe def ba sarax bi ay guro la woon ñeent. mais ñeent façon la ñaari guro yi nag Guinée laa ko jëlee ndax yombu taam mooy bu orange beeg bu bleu bi Guinée laa ko jëlee yeneen guro yi nag bu rouge beeg bu weex bi fii laa ko wutee ci réew mi donc kon tey rappeurs yi du leen may dara dañuy def fair play football nànk ñu gañe leen nànk ñu mettil ko ñu dóor leen lu métti ñu ñibbee nu métti mais rafetlu ko ndax lii ku ko gis xam ne dafa rafet te damay profité rek di wax ne sunu mbokku.

4 ans hein, ñuy organiser donc euh, vraiment yombul moo tax chaque fois dañuy wax nañu wo partenaire yi wo gouvernement bi. am na ñu nekk seen ginnaaw di len jappalé dafa metti dafa metti bu amé ay ben nit la ñaar luñ la jox dang nga defat fi lo mayé wul billet gisoo ben sponsor. maye amul ben sponsor lo loo mayewul billet mayewoo lo jaayul billet di mayé billet yi euh, donc lolu amul lo len lo xam ne yaa ko ciy wut comme c'est une fête euh, nañu ñëw du ci japp surtout ñi xam ñoy sponsor yi. da ngay jaay sa bagage nga bëgg mu feeñ fu adduna yëpp di ñëw loo fa teg dina feeñ quoi donc ñu ngi woo ñëpp gars yi nañ ñëw année yi di ñëw ñu mën ci jàpp mu gën a yaatu quoi waaw nee booy xool macha allah li nga xam ne chaque année malax maan ñooy dóor tey dafa mel ni dañuy daabale waat dañuy jël buum rek daal di koy delloo ca mboy <laughs> ayca Dakar instant mi ngi lay jaajëfal ay jëf ngi noonu maa ngi kontaan bu baax a baax Pawlish Arma Ndiaye Amadou Dame Sène Birane Salut vous les il moo le dañuy récupération c'est bien. on laisse le à la presse. on laisse le à la presse de frères. les images qui désirent. votre de famille et lui de fli. les salutations du jage. les rappeurs qui se déplacent pour aller saluer les malheurs. ça c'est très exceptionnel.